Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net Euh, ñu ngi leen di nuyu fii ci Sunugal 24 ñu ngi ci avenue de la République euh, fii ci Dakar euh, mu am nag benn jéye bu fi am taw bi fi amoon démb bi si guddi ba daaneel fi benn garab mi ngi daaneel garab yi nag ci avenue bi jàkkaarloog fi nga xamante ni moom mooy théâtre national Daniel Sorano bu ngeen ko gisee noonu sama ginnaaw ngeen gisee oto yi ñu ngi ci suufu garab bi garab bi dafa daanu oto yi ñu ngi ci suuf bon gis nañ jéem nañu gis borom oto yi nag mais nanguñu àddu jëm ci mais ñoom daal li ñu wax rek mooy kan moo leen di indemniser parce que maire bi ñëwoon na fi sax ba xool ne garab yi euh, war nañ leen fi jële mais problème bi ñu amoon mooy euh, euh, ñoom ak waa eaux forêt yi ñoo waa eaux et forêt ñoo nanguwul ku dagg garab yi te garab yi nii am nañ benn doole boo xam ne si ni suuf bi attanatu leen donc moom moo waral a liggéey bi fi am ba laal ñetti oto te lii c'est un danger permanent boo xamante ni biir ville la am muy avenue de la République jano ak fi nga xamante ni moom mooy théâtre national Daniel Sorano donc laal na leen garab bi mi ngi seen kaw ngeen gis ñu ni jéem a teggi noonu oto yi borom oto yi nag ni ma ko waxee léegi ñoom instant bi njàqare lañ am Euh, ndax xamuñu fan la ñuy jooyee affaire bi ñi ngi xaar constat ba léegi constat ñëwagul euh, ñoom li ñuy wax rek mooy kan moo leen di indemniser ndax dañuy euh, dem ci mairie wala dañuy dem feneen pour jam fa indem li nga xam ne mooy indemnisation donc mbir mi mi ngi noonu dañu leen di bàyyi léegi ngeen dund image yi nga xamante ni moom moo fi am ci oto yi nga xamante ni garab bi moo daanu seen kaw fii ci li nga xamante ni moom mooy rue de la République jano ak fi nga xamante ni moom mooy théâtre national Daniel Sorano ñu bàyyi ngeen dund image yi garab bi bi muy daanu ci oto yi fii ci rue euh, de la République euh, janook euh, théâtre national Daniel Sorano loolu fi la la fekk. waa fi la ñu fekk. naka la deme ah garab de ñun dèjà dañ taxaw ci parce que am na ku jaay fii kafe foofu la ñuy faral di toog di naan café mais dañ jékki-jékki dégg bruit bi ci suuf la jógee. parce que affaire bi comme dafa buddeeku ñu jékki-jékki muy dem peut-être boobu maa ngi rafkat boobu taxaw maa ngi caabi bi mais mënu ma woon jël risque dawal ko wala ma affaire yooyu. parce que wóorutoon parce que affaire bi muy dem noonu dafa ànd ak bruit bu am doole pour ñun sax den mooy daanu parce que en fait ak restaurant boobu am na ñu nekkoon ci biir restaurant bi mais ñoom laa gënoon di sóoraale sax parce que dama tiitoon instant yooyu mais fii la ñu fekk ñu taxaw ñëpp. d'accord merci. Mm. Sunugal 24